xanaa di ñëw rek ci niñ daan def rek képp koo xam ne yàlla dogal na nga jiitu ji rek ñu am ci ab taxaw lu def ci seen seere soo xam ne ci moom la jullit war lu digganteem ak moroomum jullitam rawatina nag bu dee kilifa yi nga xam ne ñoom yàlla daa dogal mbooloo topp ci seen gannaaw tañ am lu xam ci ñoom waaye ñu ngi koy siyaaree ki nga xam ne kilifaam la woon di mag ca kër ga di sëriñ seexum sëñ Aliou di ko ko masaw di ko ko siyaare di ko siyaare yéen njabootu sëñ Aliou gépp di ko siyaare waa Tundoodu gépp di ko siyaare yéen waa Touba ak mboolem taalibeem yi nga xamante ne si ñu ngi dégg sama kàddu di ko siyaare sëñ Muntaxa mi jiite yoon wi boo ko waxee rek daanaka sax jërëtul lu jot ak keneen waaye ñu ngi koy siyaare ki nga xam ne mooy sëñ Ahmadul Moxtaar xalifa Daarul Xudus mi nga xam ne mooy yilif njabootu Daarul Xudus gépp di ko siyaar it sëriñ Cheikh Mbacke Bombali moom sëriñ Mbacke Madina ak njabootu sëriñ Mbacke Madina gépp waaye noonu lañ koy siyaare yëpp sëriñ Abdourahman xalifab sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma waaye noonu lañ koy siyaare yëpp xalifa sëriñ mahmadan mu soxna xariloo di ko siyaarit njabootu sëriñ Saliou mbake ambassadeur sëriñ Cheikh Sikap waaye di ko siyaarit njabootu sëriñ Xaadim mbake mi nga xam ne bam fi jógee moom la xalifa bii fi nekk toogee jataayib sëñ Mouhamadul Moustapha ñoo ngi koy siyaare njabootu Cheikh Ahmadou Moustapha bu jigéen gépp di siyaare it sëñ Moustapha Mbacke daan kii moo sëriñ Fallu Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Moustapha ñoo koy siyaare waaye di ko siyaare njabootu sëñ Ibrahima Mbacke gépp di ko siyaare it njabootu borom daarul Moxti di ko siyaare it njabootu borom daaru salaam ak njabootu Afia ak njabootu sëriñ Mam Mor moom soxna Jaara borom Saam. dañuy ko siyaare njabootu sëriñ Massamba Mbacke sëriñ Mamor moom sëriñ Massamba ak njabootu sëriñ Mamor Anta Sali gépp di ko siyaare sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Mouhamad ci turu Ahibaayul Xadim gépp ñoo ngi ko koy siyaare di ñaan fa mu jëm gënal ko fi mu jóge demee nag ndaw lool wax dëgg yàlla sa bette lool nekkoon nit ku baax nag ma am lu ma xam ci moom ci noppi ak jaamu yàlla ak am kilifa te nangu ko loolu képp doy na seere doonoon na ab jullit doon taalibe sëñ Tuubaa amoon kilifa te ci waxam bariwul woon comme yàlla nag indi na dogalam te nee na kullu nafsin sa ay xatil mawti kenn mënu ci dara kullu man hadayha faanin loolu bu ko waxee it dañ gis ne fan yi jamono ji senegal tàng na lool ndax barki dee mu ñaari kilifa yi diina génnendoo ci muy Cenaba ak Laayeen la ko jiitu it kër sëñ Masamba kër sëñ Mamor Jaara kër borom Daaru Muxti Daaru Salaam fu ne dégg nañ ko kon loolu yàlla rek moo ko sañ noonee mu ñëwee nag na la ñëwee waat fii rek kon ñu ngi nuyu ñëpp di ko ñaanal rek tax ñaan rek nag moom la desee moom kilifa moom bu fi xasee jógee ku mën a doon def jullit ñaan rek waaw ñaan gi dong daal moo ci am solo fi ku julli rek ñaanal ñaan yomb na loo mën a ñaan rek mën nga ko ñaan mën ngaa ñaan ñeen fukki laxlaas gannaaw fatiha tëjee ko salaatu ala nabi mën ngaa ñaan fukki laxlaas ak benn it gannaaw fatiha tëjee ko salaatu ala nabi yéene ko yool ba yàlla mën na ko dimbali ba li ñu yéene ci moom suñu borom def ko ci ñoom. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf.